laaj bu doy waar boo ne kan mooy Cheikh na Cheikh Saad bu laaj nga original laaj nga askanam laaj nga cosaanam cosaanam sori lol, lol. lool lool sëtu yonent la bu dee sëtu yonent sëtu Adnaan la bu dee sëtu Adnan Adnaan sëtu Ismaïla la te diggante Adnaan ak Ismaïla fanweeri maam la واي آه، سيدنا محمد كذب النسابون لما فوق عدنان كما يتقب عدنان عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف قصي كلاب مرة كعب لوي غالب فير مالك نظر كنانة خزيمة مدرك الياس مدر نزار معد عدنان تخول ndax sama digënté man mo sédna mo sama mam yi digënté adnan ak ibrahim al khalil fan yori mam la mais ken xamul ni ñu toftalo fofu histoire dafa am confusion fofu te man bëgguma ñuy confondre samay maam bëgguma ñu jël sama baay direct def ko sama maam xoolal nag cheikh na cheikh Saad kuy maamam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana ko jur cheikh na cheikh Mat Fadal ku jur sa cheikh na Fadal cheikh na Mamin taalib Xiyar taalib Jiyal Muxtaar taalib Habib taalib Ali Sidi Mouhamed Sidi Yahya Sidi Ali شمس الدين يحيى الكبير القلقمي سيدي محمد سيدي عثمان مولاي أبو بكر مولاي يحيى مولاي عبد الرحمن مولاي أران مولاي أجملان مولاي إبراهيم مولاي مسعود مولاي عيسى مولاي عثمان مولاي إسماعيل مولاي, مولاي عبد الوهاب مولاي يوسف مولاي إدريس الأسقر مولاي ادريس الاكبر مولاي عبد الله الكامل حسن المثنى حسن السب فاطمه بنت رسول الله ات محمد ليقة عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف قصي كلاب مرت كعب الى اكثر ديريكت كون موم شيخنا الشيخ سعد بو اسكن ما خولال boo digganteem rek ak Seydina Mohamed fanweeri maam ak ñeent la ñu boo ci tegee diggante euh, Seydina Mohamed ak Adnan muy ñaar fukki maam ak benn muy juróom fukki maam ak kes nga nag oh. diggante Adnan ak Ismaïl yeneen fanweeri maam mais kii moo am cosaan mais kii moo am askan moo tax moo tax moo tax woykat ba ba mu weex Cheikh na Cheikh Saal bu moom koy dafa ni ko dafa ko من صمد الإله سيرت صمد فذا الكون طرا من صمدك عم نكو ومن سر نقطة السر الذي أعطاك الإله جزيل النعم أقام ذا الكون ومنك استمد وازداد في الكون ومنك انتسم ومن سر نقطة سكري بوان كرياسيون سكري تومب كرياسيون مويلان leeru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam déglu leen de cosaanu cheikh na cheikh Sadbou xeer chérif xeer jalaalu yàlla ak jamaalam la gëdd boole leen xëy gëdd leer gi ni ko sant Mahmoud ni leer gi di ko sant di ko sant di ko sant ba yàlla kontaan gestu leer gi ni Mouhamed leer ga daal di bët miim diree ko haa ba taan miim dire ko deel muy mu mhm. sallallahu alayhi wa sallam santaakoon moom la ko ne wa min sirri nuqtati ca mhm. secret yi secret yi tomb tomb bi nga xam ni création bi addina euh, euh, ci la ñu sosoo yow yow yow yow yow Cheikh na Cheikh Sadbou mooy secret bi nga xam ni ataakal ilaahi yàlla moom la may na la ni ca nga sosoo saadal wara da ngay teel xaaral ñu développé tuuti ba nit ñi am ndax wax naa càllalay mm-hmm. baayu cheikh na cheikh Saad Bou waaye cheikh na cheikh Saad Bou am na yaay mm-hmm. waaw kana yaayam mm-hmm. يا يا مريم لو تدو احمد عبدي كجور احمد عبدي محمد كجور محمد يوفلش كجور يوفلش محمد كجور محمد خليل كجور خليل عيسى عيسى ادهس ادهس ابييري كجور ابييري ابييري مامو دا فا بوك سي غيرو قريشي Mm-hmm. ndax Abdullahi barkam ya ko jur muy Qurayshin Maxtaar Amar Yandar dégg nga Maxtaar Amar Yandar Yandar lu mu leen jox mooy ma mooy juróom meel wala juróom ñaareelu maamu Mariam mii jur Cheikh na Cheikh Saad Bou tudd Yandar fan la dëkkoon ay géttam fan la nekkoon fii ñu fii ñu samp gétt ndar moo tax ñu naan gétt yandar hmm. dañ daan wax gétt yandar par déformation ñu naan gétt ndar hmm. kii ku naan dëkku fi ku naan Cheikh na Cheikh Sarr bu dëkku fi Chérif <laughs> ah wallaay kañ nga judd 1848 at ma nga xam ni addina bi puissance yep dañu daje ni ken dotul jaay jaam Mon cher le Cheikh sax xeertu xeer fa judd rek ñu abolir l'esclavage pour pour le sopé bi waay lu lu mu hmm. problème bi laaj laaj nañ ko kay jiitu mu judd waaw laaj nañ la ko wàllu yu yu ponkal yi yu mët yi au niveau des cinq continents kuy wàllu yu kaamul bu xaaju guddee boo yoree sa kurus di jaamu yàlla rek yaa ngi gis biddéew boobu mm-hmm. yàlla wékk rek dans le firmament du dix-neuvième dix-neuvième ci asamaan si ñu bind ci benn tur saadu obihi la chance de son père

Afrique Europe Asie fu fa wàllu ponk nekk rek yaa ngi gis biddéew bi lan mooy xemem saadu obéit la chance de son père ngay baayam njëkkate yoo yàlla pare na kan la koy baaxe doomu maameen ja Cheikhna Cheikh doom yi waxoon nañ ko fii daaw sama doom wax ko mu indi tolle aka am hmm. moo am juróom-ñeent fukki doom ak juróom-ñeent yoo xam ni yii ba mu leen amee ba pare dafa ni yàlla ey ñii say tur la ndax tur yàlla bu ne ci juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent mhm. wiir dina ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent muy quatre-vingt-dix-neuf fois quatre-vingt-dix-neuf ci turu yàlla diggante ak arab ak ajam Cheikh na Cheikh Ahmad Bamba bind na ko ni yàlla nag sama doomu yaram laa bëgg de génn àddina dem ñol suul ko ta ba mu avant mu dem nag da koo wax ak soxnaam yi ni ku nangu nekk sama soxna ginnaaw bu ma demee àllaaxira yowmal qiyaamati yaa nekk sama soxna mhm. ki ca àjjana ki gën a tuuti daal da koy ràngoo mhm. mu nii na su ma juumul mu nii la juumoo mu noonu la ndaw si Cheikh Cheikh Abdou Fall génn àddina en 1869 ca at moomu des ñu toog ay weer rek soxna si ëmb lor. Mhm. waa adduna hey ay waay. di ko ngun ngunee xam nga jigéen ñi rek ba mu egg ci nopp soxna si. Mhm. guddi aji ma góor gi moome si mu ni ko eh akité ma kat. Mhm. akité ma. mu ko ah mu ni ko lu tax mu ni ko ñoo ngi ngun ngunee sama biir bi te nee naa leen yow yaa ma ëmbal. الله اكبر مول لن باي لي ني واخ دو تير يوم القيامه غاي سما سخنا مول لك مول كو لولو مت نتي مان الله اكبر اتنو مكو اكتي مكو مول كو باخ ني يينل غودي اديما جي نييو ام مو يينل غودي اودو غيب ني كير كير ني كيب تي خايما با الله اكبر le lendemain à 11h ci ëlëk sa cheikh na cheikh sal cheikh na cheikh mat fadou mbëk xayma ba wuti armée daru salam nit ñi waaxu mënuñu koo jàpp ba mu ne fëre bëri ci bàmmeelam suur boppam cheikh na abul anwar juddu juddu fekk cheikh na cheikh mat fad ne woon na yaayam sa doom ji bu juddoo nga ñu toog ñetti weer mhm. kenn jàngul ci wetam alxuraan ñetti weer génnul naaj dina dund mhm. benn bés soxna si mi ngi toog ak doomam ju ndaw ju jigéen jékki-jékki mhm. Eh, ni doomam ji ndaw ji xoolal ma sa doom sa rakk ji kat ma dugg ci wanag bi daa dugg ci wanag bi xale bi toog toog ba ci yàgg daal di ni cas benn téere ubbi am ma waaw ama yetta sa aluna di jàng am araf bu mu yàq liir bi gàgganti ko la ilaha illallah waaw waaw boo gëmul baati ne gëmuma ko mais bul weddi yàlla ni wa yaxluqu ma la taalamuuna dëgg la yàlla mm-hmm. nee sos naa lu ngeen xamul dëgg Adama dafa am ndey ak baay. déedéet Hawa dafa am baay. déedéet dafa am ndey. yaay mm-hmm. dafa am baay. déedéet yonent yàlla Saalix. baayam dem na ba am si suuf ñeent fukki at. benn bi si yaayam di sangu ca dex ga. baayam ñu génn ci bàmmeelam ñëw joteeg moom mu ëmb yonent yàlla Saalix. Mm-hmm. nit ñi nañu jàng te bàyyi jàng benn téere rek. Mm-hmm. na ñu bàyyi loolu Mariama ku joteeg moom génn na ak âge de génn na di doxal tout yàlla yónni ci moom Jibril mu ñëw nekk xalil góor bu rafet ah nuyu ko mu ne ko yow lan la lan la loo may toppe nii mbaa du yaay xale bi fi nekk fii di harceler jigéen ñi taqi ah in kunta taqiyan in kunta taqiyan hmm. ko déedéet waaw yàllaa ma yow ni li bi lëkki xulaaman zakiyan yàllaa ni ma ñëw wax la ma ma jege la mbaa ma insufflé ci yow nga am doom ju baax fi muy wax ndekete yàlla xam nga lu mu ko joxoon mm. ba mu tabaxee aadama alayhi salaam mm. ban ba deset ba poussière ba moom la ko jox mu ëf ko ci diggante wenn mariama mu ëmb léegi fa mu jaaxle ci ëmb bi daal di commencé jafte léegi fa mu mm. jaaxle daal di diis fa mu diis day rek matu fa muy matu rek daal di wusi ni yale te ni mitu qabla hada nisyan man siyan waaw yow muy exemple yi ni yu bare yàlla nag wax dëgg yàlla du mën lii di tële lii mm-hmm. te lu mu defal wàllu lu mu defal yonent defal na ko wàllu yi ci la matoo ci taatu tàndarma bi maa ngi ñëw ay pa laaj pap si ah, ah maa ci cheikh na cheikh Saad waaw kay ah mm. wàllu yu wirdu wirdu wirdu wirdu benn bés ndeysaan Cheikh Sidi Ousmane mooy taawu Cheikh na Chamad Fadal ak benn doomam bu naan Mouhamadul Ghayes jëli sun Moustapha kooku foo ko fekk mu toog nii yoon ci Yàlla Mouhamed da nga ci wetam sallallahu tey doomu Cheikh na Chamad Fadal yi papapapap mais moom nag Cheikh na Chamad Fadal moo doy waar bàyyi Cheikh na Cheikh Sadou nañ ci wax benn baat bi ko yàlla nare indi ci àddina ci da bàyyam na maamin dafa jëkk ci rek feebar feebar boo xam ne wër na Afrique xam nga ñoom ci ancien Soudan la ñu dëkk mhm. wër wër dem ba Afrique du Nord mhm. wurte ku ko faj wur ku ko ñaanal ak wilaayam gi ni mu toll dajo fa ak Cheikh Mat Tidiane Chérif ñu waxtaan gindi konte ñoom ñaar ñëpp di ay xasani yu mhm. xasane leen meññ ñoom ñaam ñëpp mu wax ko ko mu ni ko a ah, jombul boo continue laajte day di nga dajeeg lu la faj waaye comme yaa ngi wirdu xaadir man maa ngi wirdu tijaan am côté boobu Afrique noire eh, lu fa eggul rek nga jox ko fa moo tax Cheikh ne Cheikh Saad Bou mu duggee Sénégal yore ñaari wirdi boo ci bëgg rek mu jox la ba ñu tàggali ko cheikh na cheikh maamin di dellusi di dellusi di dellu si dëkkam jaar ci kër benn taalibeem taalib bu bakar taalib bu bakar tukulóor la mhm. tukulóor la doon taalibe cheikh na cheikh mat faba bàyyi cheikh na cheikh saam di waxtaan ak moom mu koy berndeel ci guddi nii fekk cheikh na cheikh Mouhamed Fadel bu mu jógee ci ci eh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dafa jaar ci benn góoru yàlla gu baax bu naan taalib aswad mu waxtaan ak moom kooku ni ko ah lii moo la dal mu ko waaw mu mu mu génne benn tissu ni ko tissu bii garde ko jëmmi jamono boo doxee ba daje xale boo xam boo ko solalee dina ko mët sëkk mu ëpp du yées na ko jël soxla di nga wér mu mu mu mu yor tissu bi keroog ba mu dalee ci kër taaliboom boobu taalib bu Bakar ñuy waxtaan guddi nii di waxtaan ba ci yàgg ci ceeñeeru euh, sébb bi ñu taal benn benn jànq romb nii benn njagamaar cheikh na euh, cheikh Maamin gis ko ni ko taalib bu Bakar di dem kana mu ni ko kii sama dooma mun ni ko woo ko mu ñëw mu woo ko mu daal di ubbi waxandeem wala wëlisam wala kii daal di génne yére yére bi daal di ko ko sol mu mu yem ci moom képp mu ne ko waaw doo ma may sa doom ji mu ne ko boo ma bëggee maak moom jëla laa ilaha illallah keroog lañ ko ko may la daloon Cheikh na Maamine daal di wér soxla si yenn ko ndaka leer la laa ilaha illallah leeru kan Cheikh na Cheikh Mat Fadel soxna si noonu la nekk ci feebar boobu ba xëy yàlla def Cheikh na Cheikh Mat Fadel gane àddina soxla si wér Cheikh na Cheikh Mat Fadel ndeysaan toog ci ñeenti at la commencé nag dugg wilaaya dugg xutbaaniya dugg xawdaaniya naan yàlla ma ila maali ilaahi siwaaka jaliis kun lii wa anis moo jur Cheikh na Cheikh Saad moo jur xeertu Cheikh à l'âge Allah aw ma kenn ku ma mën a wettali yow yàlla à l'âge de la ilaha illa أو ma kenn ku ma mën wéttali yow mais def ci man lu kenn xamul deema wéttali bi mu amee 16 ans nag loolu gën éclore mu naan yàlla حيث كنت مفردا وانت انسي في كل مجمعي فما ولاني ليلي منك مطمعي لكنني لمطمعي لمقنعي الله وليس لي بما سواك مهرب يا من اليه ملجئي ومرجعي هي شوقي نعم ولا ولا كونك دائما معي معي معي معي allah njëkk dugg na xawtaaniya l'amour de Dieu l'a envoyé dugg ko ba mu fees mahabatullahi bëgg à cet âge mu dugg Cheikh na Cheikh Ahmad Fadal mu nekk mu nekk xawtaaniya te xawsu boo boo amul deretu rasulillahi mënoo koo ne Pape Diallo buñ la jiinee ni xawsu nga bañal mën nga nekk genre wàllu yu bi ne mais xawsu fokk fokk nga am deretu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal xawsu laa yaxiitu an nasli nabi mm-hmm. du génn kër yonent alors Cheikh na Cheikh Ahmad Fadel xeer nekk ci loolu ba am 40 ans 40 ans nanguwul jël soxna ñoom awliyaayu kumal yu guddi aju bu ne dañu dajeeg Seydina Mouhamed ca dorotul bayda c' est l' épicentre du monde bu ñu doon xar àddina suuf amul asamaan amul épicentre du monde foofu mooy dorotul bayda fale Seydina Mouhamed di am audience guddi aba juma bu ne ak awliyaayu kumal yi redistribuer euh, mu ngir ñu redistribuer tâche yi naanaat leer mhm. station ba wàllu boole cheikh na cheikh Mouhamed Wade ak maamam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sa set bii nga xam ne danga nga koo bëgg ñu tuddee la ko waaw ana lu tax ana lu tax mu am 40 ans nanguwul jël soxna mu ne ko sama doom lu tax mu ne ko dama bañ dara génn ci man lu dul wàllu yu ci seen daje ba ci guddi àjjuma boobu waaw

biddeew ba. yéen Sandou waaw. Cheikh Cheikh Saad bu 26e. waaw garçon garçon fekk leen moy 26e garçon. waaye bobo boole ñëpp mooy 36e enfant. ci góor moy ñaar fukay lak juróom ben waaye boo boole doom yëpp mooy fanweer ak fanwer ak juróom-benn. ah ah. ah. Cheikh Cheikh Cheikh Saad bu. léegi xam nañu baayam mhm. kan la Cheikh Ahmad Fadel mu des nag fu ñuy jëlee yaayam xamaguñ ko Cheikh Ahmad Fadel dugg xaw yàlla xamal ko ni soxna sii ma doon wax askanam sànq Mariam mii moo ko war a jël jur mu bind ko leetar soxna si gàntal te déwén sa mu bindaat na si gàntal mu bindaat ko leetar na si xaar ba benn bis mu ànd ak mu xunuuna Mariam tax Hamid Abdi ak xunuuna mu tax Hamid Abdi ñu ànd war seen gileem ñëw ba ci campement Cheikh na Chamat Vadre ñu daal di yeesal seen gileem ba guddi ñu daal di ñëw ndànk ziyaare kooku kana mu ni ko mën a Mariam mu ni ko Mariam mu ni ko waaw danga ma yónnee ñetti yoon leetar yow xam nga ni doo bëgg jigéen muy gàntal waaye man dama bëgg ñu sartoo mm-hmm. maa bëgg ñu sartoo mm-hmm. waaw te mm. dama lay tegali condition mu ni ko lan mu ne ko dama bëgg ñu nga ñu tegante ñu tegante condition ni doom ju góor ji may am mooy doole ci sa doom yëpp ay soxla si sakaguñu ko maria sagul <laughs> di condition waaw di doom bu góor lay am ne doom bu góor laay am bu góor laay te muy ëpp doole nee naa leen lii du du ay mit ngan mu toll man du toog ci ay kii ñu lay kii rek ngay fenn déglu leen waaw parce que lii du ngeen ko dégg feneen ci keneen parce que da nga naan da nga naan c'est de l'utopie naturellement parce que loolu la yàlla defal famille Cheikh Mohamed Fadel yéen Cheikh Fadel loolu la yàlla defal sama rasulaay seen maam seen ah, ak leneen sax rasulaay seen maam mais bari nañu rasulaay seen maam mais yàlla dafa def ci ñoom inaaya di leen benn façon boo xam kenn xamul lan la jaamu yàlla rek gëm yàlla rek bëgg yàlla rek sopp yàlla rek seey ci yàlla rek yàlla nag moole moo ko pikir ci ñoom yàllaay def lu ko neex mën nga forcer sa bopp ci bëgg yàlla te doo ko mën la moo waxoon xale yi essayer bu ngeen bëggee xam nanka ngeen bëgg yàlla xool leen gel bi ngeen gën a bëgg ah. ngeen méngale ko ak seen bëggeel ci yàlla ah. waaw wax naa ko fii garab gi mooy mbëggeel bi oustaz Papaan découvrir ci digganteem ak Seydina Muhammad yaa ngi koy wax sant bi ñuy tàmbali billahi le hasard n'existe pas wallahi jàllo wallahi jàllo dégg nga dëgg li Baye Cheikh c'est li ma wax ne ko dominer nga sama xol Youssou way na ko laajal oustaz an da nga dominer da nga dominer sama xol ñëwoon waaw waaw dëgg la li nga wax dëgg la wax ak moom jërëjëf waaw kay jërëjëf jële ma jàppale jërëjëf Mariam wax ak moom condition te kenn jëlagu ko waaw te kenn ko

te doomu barsax la moo naroon a ëpp doole xam nga ne du dund waa xam naa ni suuf naa yëpp san dégg nga loolu bu baax maam maa ngi déglu Pape Cheikh ndax dégg nga loolu bu baax sax sartoo na ak mariyama ci Cheikh na Cheikh Sadbu waaye day day am doom boo xam ne outre-tombe la doomu barsax doomu barsax ku ko nar a attan day séq àddina ak àllaaxira kon dina weddi sartu sartu condition bàyyam bi foofu nga foofu ngay xamee nag doole Cheikh na Cheikh Saad Bou. wax dëgg Chérif. naa la kenn du songoog man. ci kanam maa ngi ñëw. mu ni ko. Cheikh na Cheikh Saad Bou. wax dëgg Cheikh na Cheikh Saad Bou nag war a war a gën a àddina. Cheikh. ba Cheikh. sama songoog dina la la la wala. war a gën a àddina xoolal di Cheikh faf. ah waaw mais du benn doom déedéet mariama mi seen ndey moo ne am yëkk naa tawlu jigéen muy saadaani saadaani xam nga lu mu tekk ci arab chance saadaani waaw mhm. ndaka day annoncé ñaari chance yi ba kooku fere mariama ëmb saadoog suaadu te mu mariama ni woon doom bu góor laay am laay am waaw waaw mu ami waaw ñëwal. ñaari chef jërëjëf Ndiaye ñëwal. jërëjëf. Saadu ak jëkk a juddu. Mhm. guddi. xënoo na ma àndoon ak sëram mariyama wuti Cheikh na Cheikh moo doon réew réew li sëram bi Mariama. Mhm. Saadu njëkk jëkk eh, juddu mu yanu ko yóbbu Cheikh na Cheikh Mat mu xool ko ni ko kii bu baax ku baax la de mais du kii la ma yàlla wax de dem seet. ñu ñëw xool ànd bi gis ci benn lumb bu toll nii. ci bis bi. Mm-hmm. ci guddi gi ci waxtu wi. waaw. yow indi euh, indi lumb bi. Mm-hmm. Cheikh na Cheikh Mat Varda ni ko cas ni laa ilaaha illallaah. Mm-hmm. xam ngeen suul kii taxel àddina jël euh, euh, xotti membrane bi Cheikh na Cheikh Saad bu yuuxu. wa xayartu. toll nii. comme prématuré. ah. waaw ñu reylu ci saa si xar mu duuf boobu crèche amul. pour mu tànk. daal di ko koy lëmës. ñu ko lëmësee. graisse gi waaw. ndax yaram yi tàng ah, ah, xale ah, prématuré loo koy def da ngay ko dugal ci crèche fu tàng muy développé te ñoom loolu mooy son moo doon seen technique traditionnelle dañuy jël xar mu duuf rend ko bu am graisse bu dëll ñu def def ci prématuré bi mu mu koy jox chaleur mm-hmm. mm. problème bi nag mooy avant ngénte li seen yaay génn àddina non oh. مريم مريم واي باب شيخ واي الله اكبر مريم بنت احمد ابي يقولوا لين استعاروا شيخنا الشيخ كيرتو parce que ni موم اك نيكو يالله ورا نارا بيندي وارو لا ام بريسيون فاميليال ني نيو واخو شيخنا شيخ احمد فاض ني دافر سين ياي دادي روب مو جيل خالي جوخ سين تانتا خنونا Saadu nangu cheikh na cheikh Saadu Saadu di jooy rek ba ñu wax ko cheikh na cheikh Modou Fadal ko kat hmm. jigéen ki mi noppi na mi ngi nàmp ci yeneen jigéen waaye Saadu nangul nàmp nangul dara mi di jooy rek ñun di ko cheikh na cheikh mu ni moo tey yow yaa yow ndeyam tantam xunu na da ko naroon suul lool la la meree oh. ba du nàmp allahu akbar loolu ko meree ba du nàmp bi mu gisee lumb bi waaw mu naroon a suul loolu xamul woon nit la. xamu ko waaw xunu na xamul waaye Cheikh na Cheikh Saad mer na ci xaat. xanaa xamoo Cheikh na Cheikh Saad. xunu na a xam ne la baarasul awliya wal muluk. bu nee na. je suis des saints et des et des eh, xaalis jaaj sa waa ji. fekk leen. na hmm. Cheikh Saad bu nee na. buur yëpp. wàllu yëpp. maay seen ouragan buñ ma tooñee. maay seen. ouragan mooy seen callu weer xam nga callu ngelaw lii dëkk ci géej gi rek mu ut si ndakaaru ma ma ñëpp Cheikh na Cheikh Sarr bu nee na buur bu ma tooñ noonu laa lay def wàll yi bu ma tooñ noonu laa lay def wa xeertu xeer Chérif ci awdu am ñeenti at xeer jigéen ñi ngi ko dénk noonu bu kii bootee jox kii kii boot jox kii magam Cheikh Mel Aynin ma ca Maroc hmm. كجاخل ماروكاني مومي تي تي لوني ماغا كو شيخنا ماغا شيخنا شيخ كوكو بو ني مسان بوت شيخنا شيخ صار بو رومبو كو مونان اي شيخو ندار تي كو خمغ فوم ني اودو دان لانسيون سودان جابلين وقت دي مونان شيخ مال عينين مو سامبو مو مو دون سرينو ول مولاي اسماعيل ميجور حسن 2 شيخ مال عينين مو ديف مو ديف جياد با contre les Français les Espagnols et les Anglais. Mhm. au Maroc. suis ma Cheikh na Cheikh bokk de a 20 ans Hein? Cheikh Ndar la Cheikh Cheikh ans Nous, jox ko magam bu ñaan je Rahman Rahman le Quran. خلق الانسان علمه البير رحمن يا ويلا لميزير علم القران ممرك من جانغ القران مسانكو الوبي ارك إيه؟ إيه دو جانغ منكو اه كي من جانغ لبي ديف سي يو لا اله الا الله تاي شيخنا شيخ سعد وخير خير خير خمس متي جي لي متي دينكو خم لي لا اله الا الله علم القران موم ريك مانا جانغالي القران مو ها اه دي ساني الوجي بو امي فلا لا اله الا الله خولال سيرك فراري ني ام فو رومب شيخنا شيخ سعد ما ngay إيه. نلو امم با بيلي بس شيخنا العينين مي مالا وخ ليغي اها nga xamni moy borom naat bi la yaa mo joxal mo joxal maroc ci xam xam mo ma gay cheikh cheikh sa 25 ans 20 ans 20 ans 20 di ñaanal buuru Maroc. waaw. Mohamed 5 di leen sam motax tax eh bi nga xamé ni euh, la fille du du du du du du de Hassan 2 a eu des problèmes manto de ñu jël Cheikh Aya l'actuel président Khalifa. Khalifa ak Cheikh na Cheikh Abdou sama sank sama serigne ñoko ko ñaanal. Hmm. ah télé bo ci wax waxal lo xam de. deug la de waaye ndok yalla yalla baax Cheikh Baye Seck. mais sa mu ngi dégg kenn du nga làmbaay eh, maa eh, nga mbéy gitee nga mbéy jam yaa nga mbéy fas ñu denc fii soriwul de. mu septième gare. Ah, waaw ma ñëw ci Cheikh na. Moussa ne ko allo nekk ci boppam di nelaw benn bés baayam di dem ci jàkka ji timis ànd ak cheikh mal ay nii ni ñu ñëw fakkataloo ko mu tëdd ci yoonu jàkka ji di nelaw waaw moom cheikh na cheikh waaw cheikh na cheikh saad xeer xeer cheikh mal ay nii ni ah hada saad kii saad la hmm. ni da koy yee bàyyam téye ci loxoom ñu ko kii wuta naag ñun de hmm. ñun lii ñu am xam nga lu ñu ko amee kurut yeeg jàng alquran yeeg naafale yi كنكتنا لهم يلك عمل وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخايف كلهن أمان وإذا العناية وإذا العناية لاحظتك عيونها نم نعم. فالمخايف كلهن أمان كو خلولو بايم شيخ محمد شيخ محمد مو تيلو شيخ محمد ملاي واو نيكو كي خارم وخلتي موم ليكو دال موي كيغا خامني مو ساك نلاو sàkk xam-xam sàkk wilaya sàkk sécurité mën garder mo koy garder ci nelawam yi di def ci mom lo xamni ñun bala ñu koy am dañu julle ko wor ak nafla ko luna Cheikh na Cheikh Saad bu bu ci nelawam la koy am ko yalla yàllay sol la ñee wuti yàllay maye yàlla man wax bi yu la c'est un inspiré c'est un inspiré wax bi yu la da koy wax plus tard alhamdulillahi alladi li wahab علما وحلما وتقا كذا النسب الحمد لله الذي وهب اه الحمد لله الذي لي وهب اه دوك يالا يالا باخنا ما نغلي سانت يالا يوم ميغا خامني يا ما ماي يا ديف تي مان خام خام وحلما ak générosité baax ak ragal ak askan wu baax jàlla ni mi nasi taaxa ahmada dafa ndànk na ñu toj loolu nag ilman waaw ilman eh, xam-xam boo xam ni bi kenn mënul ni maa jàngal cheikh na cheikh Saad bu te moo raw ci àddina cheikh Saad bu nee na ilman xam-xam boo xam ni bi wax bi wax bi yu koy dee di ko sol moom cheikh na cheikh Saad bu borom nim saat nee ilman يا من تنزه بالكمال عن ولد ووالد خص بالبقاء والكلام ياك وخمر نمجر حلما وحلما شيخ سابونينا علما متكتي حلما وحلما جينيروزيتي وتقى وحلما حلما من قام مليار شيخ سابونينا حلما من قام اي اوتو برام جنرنا وحلما واي ولايه لوكو مايه Cheikh Saad Bou ne wa xilman ku ko fi am nga ko sa bopp sa doom sax doo ko jox Cheikh Saad Bou nee na wa xilman Cheikh na Cheikh Saad Bou jox ko Cheikh Irim Ndamane jox ko Cheikh de Calaw borom gànnaar nee na wa xilman jox ko Cheikh Amadou Ndiaye cheikh Sadbou ne waxil man. jox ko cheikh Youssou Babar Gueye jox ko cheikh Alpha Diol. borom saalixiin nag nee na waxil man. jox ko cheikh Amadou Lo jox ko cheikh Amadou Jëmbëre. cheikh Sadbou ne waxil man. jox ko cheikh Amadou Ndiaye jox ko cheikh Cheikh Faye Diouf. borom gànnaar ne waxil man. jox ko jox ko jox ko dina leen lim léegi. cheikh Sadbou ne waxil man. xoolal lu ko jiitu bu ko def bu ko defoon fii rek bàyyi gànnaar Moustapha ay gànnaar la ko jiite. borom gànnaar ne waxil man. bu ñu yàkkamti téyel foofu ma ñëw ma développé ba ci kanam. day eh, bay si bay si maam fii rek nga ñu andi. Cheikh na Cheikh Saad bu. wax mu dugg ci bibliothèque bu baayam boobu. bu jëlee livre bu toll ni sama livre bii. Hmm. daa du ko ibbi. téeméeri li ñu ne. téeméeri ligne yu ne. benn liir la koy liir mu dugg ci yaram. lu mu waxoon ci Arahman. رحمن إيه؟ علم القران مويلا رحمن ايه كي نغا خمني مويلا ميزير ديال الكلمة علم القران مو من جانغ القران جانا اقلي لا لا فنيخ <laughs> ده رك بنيني مو موك منيني مو موك وابيلو سي تان انسبيري ديفان لا اله الا الله جيروم نياتي ات مو نان بيبليوتيك بيب ها واو dugg nak ci daaray Sofianke bayam Cheikh na Cheikh Mat Fadal <coughs> wara naan nag Sirui, siru yi turu yalla yi fekk de il a été formé spirituellement par son père Cheikh na Cheikh le plus grand maître que le monde ait jamais connu adina amu fi ben wàllu bo meuna bo meuna boo bu boo mën a méngaleeg Cheikh Cheikh Ahmed Fadel. xër xër xër xër. xam nga lu tax. Cheikh Abdou Khadre Jilani xanaa moo ne sultaanul awliya. je suis le prince des saints. mooy buur wàll yi. fa martaba am jeexe ci yàlla fa la martaba Cheikh na Cheikh Ahmed Fadel commencé. la ilaha waaye nee leen wax yertu waaye. wax yertu Chérif xër. xam naa lu bari di ngeen ko ci comprendre day lii day niroog science fiction. waaw waaye maam maam. waaw baatina mel noonu. maam waaw lu tax Cheikh Mohamed Vade wulu maa mel ni fu ñu ma tuddee boo ne waxeertu ñett yoon doo lakk. déedéet lu gën a gaaw sax. lu gën a gaaw. nee nu wax nañu euh, le sufa nee nañu yowmal qiyaamati dañu gis ñëpp góor yëpp góor yàlla yëpp dugg àjjana ñu gis seen Cheikh Mohamed Vade nekk ci biti de doxantu ñu waa kii lu muy wut ñu ne xam nga lu muy wut. Hmm. képp koo xam ni kii mës nañoo tudd turam mu ni wax yertu mu jàpp ko dugal ak mu xeertu kon dinañ fa tase at bu jot xeertu quartier général boobu ba tey wax xeertu fu ñu toog wax ko rendez-vous au paradis ma ñëw wax xeertu ma ñëw li ngeen ma laaj dafa bari te temps bi bariwul waaw toog ba naan temps bi dommage de troisième quartier général du am de dëgg la demal demal mu mu xoolal xeertu ndeysaan mu nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ci ta ci ba baayam Cheikh Mat Fadal yërëm ko du lekk du naan tuuti di jaamu yàlla rek mu ni magam ki nga xam ni mooy gérer bétail euh, ba bi xam Hamdu Maalum ni ko sa rakk ji sonn na lool ci daara jee mu ne daara daaray Sofianke gi jox ko benn benn benn euh, nag ñu ko koy rattal mu indi ko benn nag yewal ko taalibe yu mag yi mel ni Thierno Ndiaye ni ko yow sa baay ak alal ji mu yor sa mag ji i ñaane la mënu laa jox nag mu bari meew xanaa mu jox la bii rek ah gedd ko Cheikh na Cheikh Saadu waxiir mag ji ñëw rek am baalu mu ne ko euh, euh, euh, jëlal nag yu yóbbu mu ne ko ah, lan la rek mu ne ko soxlawu ma yooyu nag mu ne ko la mu ne ko amul soow mu ne ko waaw yow kaas mënoo koo jeexal ñu jox la nag lëmm waa léegi baax na léegi dina toogal dinaa la rattal loo naan rek loolu mooy nekk sa sa relation journalière cheikh na cheikh saad bu nee na ko baax na nee la fat faltasabtu bil ismil waasi yaa waasi yaa waasi waaw nee na ma jël turu yàlla boobu naan yaa waasi mooy xam nga lan yow aji yàqaliku ji yow aji yaatu ji nee na ma dawal ko ba tëlatuwu adadan ma dawal ko dawal ko sama mag ji daal di ñëw indil ma lu wat genn wàll litre ma ni ko secc mu xool ma indi litre ma ni ko secc mu jël bagaan bu ndaw ba jox ma ma ni ko secc mu xëcc bagaan ba ba ca tollu tabale ji <coughs> mani ko secc mu xool ma xam ni lii xarq aadala lii du normal mu mm-hmm. mm-hmm. ni ma sa rak ma ni ko mu ni ma mu munu maa duy teen bu amul fond

lii indi génnam damay taxañaa mhm. waaw lii indi génnam mhm. mooy benn bés dañoo toog di waxtaan ba ci ak seen benn taalibe papa di jarbaatam di turandoom Cheikh Mohamed Fadlul Habib demoon tukki ci boori Soudan ñëw indi benn grand boubou bu rafet ci tissu bu buñ naan Damas ci jamono yooyu doom yi doom yi sëriñ mi ñoom ñëpp ni kër këpp ku nekk ni ko jox ma mbub mi jox ma mbubb mi jox ma mbub mi jox ma mbub mi ah. Cheikh na Cheikh Saad moo ci gën a tuuti. mi ngi toog rek nit ñi. Hmm. mu ne lee eh, mënuma leen ko jox yéen ñëpp benn mbubb la rek. kenn laa ko ci jox ñi ci dañ may mere. léegi kaa ñu teg condition. sama turandoo sama sëriñ ma ngay dugg xalwa ci kenn xamul kañ lay génn. ku mën a ku mën a def tasarufaat def baatin ba mu génn. yaa moom mbubb mi. gars yi ne ko ah yow nar a ñëw may mbubb mi. ku ne dellu ginnaaw. شغل الشيخ سعد بن خير خير محمد باظم اللي طالب خيار ديال المختار طالب لي طالب حبيب يحيى الكبير طالب خلينا ديال محمد نيكو من من من منكو ياو منكو واو في مو يخ في مو يخ دي شيخنا الشيخ محمد باظم نتل صلوا دال صلوا مبخنم صلوا امامام تي امام من داود daal di dem باتا ba تاخو نيتو تدلو سوات ni tuuti dellu siwaat ci xalwam fii waa ji di jox mbub mi Cheikh na Cheikh Saad bu mu ne wool leen ma wool leen ma Saad mu ñëw mu ne ko yaa ma def li <laughs> Saad bu yaa ma def lii mu ne ko waaw ko jeex na suñu séparation tey la génnal maak yow mën a cundu dëkk mbaa kenn ci dina dee génnal ndeysaan Cheikh de Cheikh Saad bu nag déglul nag fii moo am solo hasard amul comme cheikh na cheikh saad bu déglu leen bu baax pap comme cheikh na cheikh saad bu danaan wax bu mu nekkee gune fu mu toogee rek ni nii day nettali de moom ci téeréem bi naan al asinatu navida waqad kuntum mud sibaaya mulaan bi jawalaani wa tawatunu bi gayri mawatini cheikhi وأقول في نفسي إن قضى الله حاجتي على يد والدي وكنت موسما لتربية القلوب والاطلاع على الغيوب فلا بد لي من الخروج عن الحوض لأن أهله أغنياء بالشيخ لا إله إلا الله ديكتي يو شيخنا شيخ سعد يلا دولين بوبيب خم غلان موكو نارا كاركتيريزي ديغلو لين مدي بو باخ ديغلو ديغلو شيخ بايشه da daan wax mustu si baaya ba mu nekk xale la hmm. dama daan wax bis bu ma yàlla baaxee ba ma am li ma war a am ci dooley baatin ak spiritualité te mu jaar ci sama loxoy baay bii xam nga lu tax wóorul nga am dooley baatin te jaarul ci borom baatin mukk xëy rek di bëre te jàngoo ci jaaroo ci ci entraîneur hmm. wóorul de doo bari technique. déedéet. di nga am doole di nga am rapidité mais doo am technique. Hmm. waaw. Hmm. boo jaaree nag ci wàll yu boo xam ne bi éducateur la formateur la da nga nekk éducateur am nekk formateur jël boo booleeg sa bos. looloo dal Cheikh na Cheikh Saad bu diggante ma bàyyam Cheikh na Cheikh Mat Faas. xeer mu. woko fek Cheikh na Cheikh Mat Cheikh na Cheikh Saad bu momi xale ma nga daan wax bis bu ma amé doole joju ak kattan bobu xamna dina génn ndax rew mi luñ ma fi doye sama baye Cheikh Mat Badou mo fi ne régler problème yi ci bu dé xam-xam mu régler problème bu dé wilaya mu régler problème bu dé ésotérisme mu régler problème yi lu mu ci monta doon régler nako ci walu wilaya digënté nit ak boromam ak digënté nit ak moromam kon lu ma fii def kon fokk ma génn jaay sama wilaya fen nee na wéyam nee na boobu sama xel nag mi ngi ci dem ci penku waxu ba bit jihatul mashriq nee na sama xel mi ngi ci Cham Irak eh, Inde Pakistan Afghanistan Iran foofu nga xam ni góoru yàlla yi ponkal yi fa la nekk fa la la sama xel nekkoon pour ma dem reyante fekk ñoom ndekete yow aratu amran wa aradallahu xayrahu mm-hmm. ndekete yow namm naa loo xam ne lii yàlla namm na contraire bi la ilaha illallah loolu ex situation bi am rek bàyyam ni ko génn du moo doon moo doon moo doon boppam génn hmm. bàyyam ni ko génn léegi mu ni ko bàyyi mu ni ko hee kaay kaay kaay kaay ndeka cheikh na cheikh Saad Bou xër chérif bàyyam bi mu ko nar a cheikhal doo gis àddina ku ñu cheikhale noonu hmm. ah. doo ko gis nee na xat kuntu daata leylatan mustaxilan fi ljiddi fi dicri xaiban an shahidi fi lafkaari fi hadi daar wa tilka daar id axadatni sinatun qalila fa ida bi naarin jalila baydaa la xarra laha wala lahab wala jamra fiha wala xatab bal hiya ka nuur alxaalis aw ka bayaad alxaalis nee na benn bés damaa toog yore sama kurus à l'âge de quatorze ans quinze ans. moom Cheikh na Cheikh Sarr waaw. di wér di jaamu yàlla ba jàgg dajant bu gaaw jàpp ma. ne ma sëb bu rëy. Mhm. sama kanam. ma xool sëb bi mi ngi tàkk amul saxaar amul ceeñeer amul dóom amul dara ma jóg yër ko nii gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ma xool gis Seydina Ibrahima toog alayhi salaam. alayhi salaam. ما خول جس سيدنا موسى عليه السلام توك ما جس كلا نينتال موسى مباي شيء أنا شمت فاد وخير نرى ما ندين ما نجاسول ما جاسو جس يون شالا نوح ميجوجي سو ميجوجي سو نيو دوغو تي سببي نيجوج نيو نيو نيوكو سما ما باي خدتي دادي ما يدوغو تي بريزنت ملين ملين بحر جح ميون شالا نوح فضمني على صدر الرحم مجل دنم تك سما دن نرى ما فعل بيا ما الله بيا عليم لجوجي تي يون شالا نوح دوغو سما دن بيار ركوا الله أكبر ما جوجتش لن تبقى مني شعرة إلا وتذكر الله تعالى باسم من اسمه خاص خاص خاصا بها وشاهدت تسبيح سائر الأكوان بما تجوجي كارو ينك سما يب مديك كارو بني دي سكر دي تو دي يالا تكارو بني با تور يالا وغا يور سما روم يوركو الله أكبر لما ليدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمناني الله وشاهدت تسبيح سائر الأكوان lu Yàlla bind muy sab mu koy sàbbaal ndax xam nga inna min inna min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi fi mu ne butéel bi mi ngi sàbbaal yàlla kaas bi di ko sàbbaal appareil yi ñoo ngi sàbbaal yàlla lamp yi ñu tiim di sàbbaal yàlla nit rek moo mën a toog nit rek du sàbbaal yàlla nit rek ko ñeme waaye loo gis muy lu dund muy lu nooy muy lu wow mi ngi sàbbaal borom bu noppee sàbbaal rek daal di dee mbaa mu mbaa mu toj walakin laa tafqahuna tasbihahu tasbihahu jërëjëf Seck na cheikh Saad bu nee na ca jamono jooju luy sàbbaal boromam maa ngi koy dégg li ma wër yëpp lu ci ne lu ci lu ci sàbbaal borom maa ngi xam na mu koy sàbbaale allahu akbar hmm. ah cheikh na cheikh Ahmad Fadal ne ko génnal génnal تي شيخ البلاد نيكون نانا بنيو خي شيخ محمد بعد الحبيب مي دون بروم بوم والي لا شيخ محمد بعد مكو فورمي موم انفيرونمان ييب اي والي لا سيني شيخ دوم ياك طالب ياك ييب والي لا موم دف جنت دف راكون لا واو دي جنت نيو ديكو نيتل شيخ محمد بعد Cheikh na Cheikh Ibrahima ko eh noppil yow yàlla na yàlla fay loo bëgg ci sa gént gi waaye noppil te li mu doon gént Cheikh na Cheikh Saad bu la moom gis na seen bi yëpp ak ni ya ak ni Cheikh na Cheikh Mat bu daal di koy jox amaamaam mm-hmm. mooy kaala gi tegal ko ko jox ko kaamil mm-hmm. da ko génn Cheikh na Cheikh Mat Wade Cheikh na mm-hmm. Cheikh Saad bu daal di génn mm-hmm. ba ca àll ba mu mu mu mu gis benn taalibe daal di koy jël lépp jox bagage yëpp jox ko ko ni ko boo demee delloo ko sama papa ni ko mënuma mënuma koo quitté bi xaar waa ji ñëwee jox ko Cheikh Cheikh Mat Wade Cheikh Mat Wade daal di jël bagage yi boole ko beneen taalibe ni ko boo demee ni Saad Ahmed Nawul Issa kooku dinañ indi histoire am tuuti ci kanam. Mhm. ni ko demal ànd ak Saad. te bu leen bu leen dëpp bu leen bu leen gestu ñuy dem di dem ba dugg benn dëkk gis fa beneen taalibe Cheikh Cheikh Saad bu naan Ibrahim mhm. ñu wax ko histoire bi mu tëj këram tëj euh, euh, atelier am daal di ànd ak ñoom. Mhm. ñoo ngi dugg biir gànnaar nag bi ñu duggee biir خرباسي شيخ الشيخ سعد بوديرف اك ولايه اك تمكينغا والي فير بولاكو بور بور سيدي بور بي سيدين ييكو وولو شيخ الشيخ سعد بو اك فرير محمد المعلوم محمد المامون نيلين دما بغ نين ген دك بي دما كوي تخاندي ñu xam ma moom bokk bokk ci woon sax moom dafa demoon di aji màkka mooy ki dee màkka ñu koy biñ koy dugal ci bàmmeelam ba néew waa néewam mi nga naan rabbi zilni munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin kooku mooy magu cheikh na cheikh Saad wa xayar chérif bi nga xamee biñ koy denc biñ koy denc waaw biñ koy denc biñ koy yor ci bàmmeel bi mi nga naan rabbi zilni munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin yow mi yàlla yaa mën a recevoir reçois moi avec beaucoup de bénédiction Cheikh na Cheikh Saad bu Sidi gànnaar nag bi mu duggee gànnaar daal di ñëw fii ba ci booru ndar jël fi soxna toog tuuti Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadou ko ne ko jóge fi am na dëkk boo a dëkk muy nim ci at la tudd mu daal di génn dem mhm. fu sori sori ci biir gànnaar daal sa première zawiya <laughs> muy Tuisikt tabax fa étage taalibe yi daan jóge fii ndar ñoom maam Cheikh de Thialaw ak ñooñu mhm. di yenu xor yeeg di yenu ciment di yóbbu sur des milliers de kilomètres di ko yóbbu ba tabax ko mu nekk fa 15 ans defar taalibe yu bari mhm. ñu Cheikh na Cheikh Mat Wade feeñuwaat ko ñu ko ah du fii <laughs> nee naa la sa dëkk ni mu caat la tudd mu tejaat foofu dellu siwaat ci biir dellu su boobu nag en 1872 ah ci la xelam nekk nag ci Sénégal fekk ay taalibe daan nañu rocceeku fii dem mu leen di defar mu leen di defar mu mu rocceeku nak xelam nag nekk ci Sénégal comme baayam da ko génne woon pour lan il était porteur d'une mission mission bi booy lan mooy defar jaam yi ndekete yo Cheikh na Cheikh Mohamed Cheikh le Cheikh Sadbou ndekete yo humaniste le bo xamni bi kenn xamul lan la la ilaha illallah Mm-hmm. avec avec ta bénédiction comme il y une une bénédiction là mm-hmm. laataa ñuy euh, euh, euh, Tamboli